salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki Sénégal mbokki Touba Mbacké maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen sant man la Abdou Niane responsable APR Touba Darou Khoudoss derrière Cheikh Abdou Lo directeur course bu Bambey. waaw xam nga ñun dañuy ay murit avant tout doon ay taalibe Serigne Touba la xalifa général Serigne taxa Mbacké joxe ndigal ne képp ku ko yaakaar képp ku yaakaar Serigne Touba na nga ñëw ci inauguration bi nga xam ne si ne mooy Ila Touba yàlla dogal mu tombe ak ayam. teyit histoire yoonu murit képp koo xam ne si ne inauguration am na ci Touba mu tombé sak ay da ngay woote woo taaliba yëpp ñëpp génn ba pare tamit son excellence la président Macky Sall nekk suñu secrétaire général nekk suñu responsable parti ñu yàlla dogal ñuy def politique nekk ci ginnaawam donc su jógee ñëw Touba kon dafa jaadu ñun ñu mobiliser def ci li am ak li am li man ak li mënu lépp ngir bis bi jàll te vraiment ku ñëw fii tey da nga xam ne bis bi jàll na te xam ne da nga xam ne tamit sëñ Touba rek moo jar a defal.

wala ngay ab sénégalais rek da ngaa war a génn ci loolu ñëw ci ndax day lu rafet ta da doon loo xam ne si ne lu am njariñ la pour Sénégal ndax fu ne la def 4 heures de temps wala 5 heures de temps léegi ñu ne la une heure de temps et demi nga koy def donc loolu dafa nekk loo xam ne dafa satisfaire sénégalais yëpp rawatina population Touba moo tax tey population tubaab bépp génn ñii mën a dox dox ñii mën a yéeg sareet yéeg sareet ñii mën a war welo yor welo ñii a yéeg ci oto yi jël tey daal kenn ku ne ak moyen de transport boo mën a def def ko ngir fekk si bis bii tey day joxoñ ko joxoñ ñi nga xam nga ñun li ci des mooy leen rek mooy delloo président de la république njukkal ndax tey képp kuy politique dëkk Touba tey président daf la lebal dafa def loo xam ne si na tey foo taxaw mën nga ko faa wax ndax défendre président de la république jafeetul ndax projet bu toll nii mu def ko fii tey képp kuy politicien sigil na la li li la war nag mooy nga delloo ko njukkal ni nga koy delloo njukkal mooy le 24 février 18 heures président de la république rapporter record bi ñu joxaat ko deuxième mandat Sénégal jëm kanam ndax lii moom ku ko xam ne lii rek mooy njariñul Sénégal lii mooy jàmm tey ku ne xam na ne tey fii jàmm rek a fi ne ndax mbooloo mu toll nii xuloo amul xeex amul dara jógu danañ xam ne mbooloom jàmm rek la mbooloom Serigne Touba rek la. waaw loolu moom euh, lu may jox politiciens yi yëpp la rawatina jeunes yi ak femmes yi suñ jëbee ay élection ku ne xam ne na ay élection euh, lu compliqué la lu doy waar la li ci njariñ rek mooy boole force yi ndax buñ boolewul suñu force rek dañ am beneen faible boo xam ne day day day nekk ci suñu biir kooku bu élection ñëwaatee dal suñ kaw dañu yóbbu kaat appi kon nan fexee boole suñuy force ndax am na force baa ngi fi buñ boolee force yi boole doole ji boole lépp rek incha allah la 24 danañ jox président de la république li mu bëgg en même na moyens yi laaj yëpp ci bis bi mu def ko ci ngir bis wax dëgg yàlla am li taxoon président de la république fal ko tey ku ne xam na ne boo ñëwee Touba surtout Darou Khoudoss tey loola agsi na fi ndax population bi ñëpp yëg nañ ko ba tax tey mobilisation bi nekk mobilisation bi nekkul lu jafe lu yomb la nit ñi sax dan lay laaj kaar ba mënoo am ñëpp ñi laaj kaar ñëpp sax mënoo leen a jox kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal Serigne Mountakha xalifa général de Mouride suñu borom gën a guddal aw fanam gën a wéral ko di ñaanal président de la république mu yàgg fi suñu borom gën a jubóole seen i diggante ndax bu nekk ña suñu borom boole rek ñooñe ñoo jamono tool kon président de la république ak sëñ Muntaxa suñu borom moo leen boolee jamono mu nekk tamit jamono ju rafet jamono joo xam ne si ne tamit infrastructure boo xam ne bu gën a mag ci Sénégal si yàlla dogal na tamit si la juddoo kon ñu ngi koy ñaanal di ñaanal Serigne Sidi Muxtaar mi nga xam ne moo defoon pose première pierre bi suñu borom yokk ak leeram taas ñu ci barkam sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax kontaan ci président de la république indi ko fii tey ci Touba tey population yëpp génn di ko sargal président ñi ngi koy sant di ko gërëm xam nañ fi mu teg Serigne Touba ñu ngi koy ñaanal mu am deuxième mandat bu sedd guy suñu xol sedd na mënuñoo wax tey tey mënuñoo wax suñu xol dafa sedd. soxna maam soxna maam Xari Mbacke mu talaa kenn du moom ndax tey jii li mu def si mobilisation bi juróom benn ti set ay nag jënd na ci lu mat cinquante nag yoo xam ne rey nañ ko fii ak ay ndox tasaare ko fi daal président daal tey suñu xol dafa sedd mënu ñoo wax waaye ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal ci barkeb sëñ Mountakha Bassirou mu am deuxième mandat bu sedd guy deuxième mandat am na ba noppi deuxième mandat